jërë ngeen jëf jaa ngi ne gàññ ci l'observateur coowal yamba ngi ne jasar ci yéen kay page huit ba neuf tey ji waxi yamba moo fa nekk journal bi nañu droit de l'homme si bii di Seydi Gassama directeur moo jibal xalaatub ñu daganal tuxum yamba ci réew mi xalaat bu ni mel fan la ko tekk ak tey ji bu ñu doxoon ba yegg ca nan la ñu koy doxalee Seydi Gassama mi ngi koy leeral ci journal bi yéen kay bi tegal ñu ci ne li tax mu waxee noone moom Seydi Gassama xëy na dafa gis ne li feesal kasoy réew mi ñi jàppe yamba bokk na ci l'observateur nañu moom Seydi Gassama tey ji bu ko kilifa kilifay réew mi wuy ji woon ci xalaatam boobe Sénégal mooy doon kon ñetteelu réew bi daganal tuxum yàmba ci Afrique ne Zimbabwe moo ko jiite losité topp ci laaj bi di ndax Sénégal moo leen di ñetteel yéen bi nañu waaye daganal tuxum yàmba ci réew mi di Sénégal du yomb ndax nit yi diine yi ñu dégg ñu wax ci nee nañu mukk du fi amee médecin yeeg psychologue yi ñu ci dégg ñoom it seenum xel dalu ci Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne waa L'Observateur Seydi Gassama sama waay la waaye xalaatam bi moom rikk waaye na ko delloo fu mu ko jële woon du xalaatu nit du waxi nit Mame Matar Gueye ne bu ñu fàttali def na ñaari at ci ginnaaw Ahmed Tidiane Diop benn doomam bu góor bu tux yamba ba yàqu moo ko tëroon ne ko deqet ren di bëccëgu ndara vox populi nañu Seydi Gassama miy wax waxi daganal yamba ci réew mi waa ONC Jamra yàkk nañu ko musiba ak mbelengaan vox miy laaj ci xëtamu njëkk ndax dañoo war a daganal tuxum yamba ci réew mi mi ngi ñuy yeggee jëf ju ñaaw ju amati ci réew mi amee ca yo ba jaawoo ga ca Kolda benn femme lañu foray dañu ko ren di deqet jël bopp ba yóbbu Kumba Kan di femme bi ñu fi doon jaaba jonge fan yi yëpp ci réew mi te ñu doon wax naan ay nit ñoo ko ci kër Mbay Fall moom Kumba kan. ginnaaw bi mu feeñal l'observateur fexe na ba wax loo ko li xewoon ak ni mu ko dunde musiba mi ko doon yoot te mu mucc ci lépp wax na ko journaliste l'observateur yi yéen a kaay bi dañu waaye moom it loolee mu ne dañu ko kidnappé woon tey na xel yu bari rawatina policier yi ca polisub Touba ne ba mu feeñee ñu yóbbu ko fa di ko enquête dafa wax ci enquête ba ay mbir yoo xam ne dafa tey xelu enquête yi bi ci njëkk moo di bi ñu xoolee ay bagaasam moom Kumba dañ cee gis ñaari melokaan yor nab express ñu ràññee ca caat ak fu malaat journal bi ne nañu ñoo nga pëlis ñu tëye cib garde à vue jàpp gi ñu leen jàpp journal laas nañu moo waral seen natango yi ci collectif ñoo lànk ñoo bañ ne duñu seral danañu taral xeex bi lu mu laaj dinañ ko ko jox Alassane Seck secrétaire exécutif Ligue sénégalaise des droits de l'homme ne ci journal bi dañu leen a yàpp rek waaye liñ leen jàppee amul fenn distribuer ay flyers musuta doon crime yi ay raykati nit la yuñ dul dégg président Macky moo ko wax wax jàngi ci xët mu njëkk soleil national mi ngi ko ndaje mu ñu doon def ca Togo jëme woon ko ci faux médicament yi soleil national nañu ca ndaje moomee amee woon ca Lomé ga ca Togo fa la ñu yégée ne faux médicament yi at mu yàlla sàkk dina faat ci àdduna bi téeméeri junniy xale ak ñaar fukk ñaar fukki ka ak juróom-benn yu feebaru rougeole grand place ne nañu nemmeeku nañu ko ca Kolda moo waral journal bi bind ne jàngoroy rougeole ji dellu si waat na na ñetti kaa yu feeñ ca Saint-Louis ji laal na leen nañu ak sunu lamb mu ñuy wax ne combat revanche bi ñu bëgg a tëgg mu di combat bombardier ak Eumeu Sène léegi xam nañu ñaari mbër yi ku ca nekk ñaata lañu lay fay Eumeu Sène 60 millions la ñu koy fay bombardier 40 millions